bu fal teg fi démocratie te ku la bëgg rek moo lay wax ku la bëgg moo lay topp ku la bëggul lijjantiwu la kon loolu mbëggee rek lay waree ku la bëgg kese moo lay wax dëgg moo lay topp mais du la jël daf la yàlla daf la yeneen même le prophète sallallahu alayhi bu muy taxaw toog ak saxaaba yi kàddu bu ñëwee dañ koy laaj ba xam lii sa wax la wala waxu yàlla bu nee lii sama wax la ñu ne ko dañ koy waxtaanee sa wax la te pourtant yonent bi ah sallallahu alayhi wa sallam du moroomu Sonko du moroomu Jomaay du moo Mollah Morgun da doon toog ak saxaaba yi ndéem yàllaa ko yónni bu waxee ñu laaj ko ba xam lii say wax la wala waxu yàlla la bu nee lii samay wax la ñu ne ko kon nañ ko waxtaanee ndax sa wax la mais bu nee lii waxu yàlla la ñu ne loolu kenn du ci wax nañ ko defee ni ko yàlla waxee donc kon ku fi indi loo fi mën a indi nit yi am nañ droit teg ko ci table bi waxtaanee ko parce que nul ne détient le monopole de la vérité absolue et nul na détient la connaissance acquise kenn amu ko doo ko jox kenn ku suñu borom subhaanahu wa taala donc ils ont vraiment droit ni ñu taxawee ak nu ñu déterminé woo dafa wane dafa wane rek seen détermination dafa wane seen mbëggeel ci projet bi dafa wane seen cofeel ci projet bi waaye dafa wane seen pastef ci projet bi waaye encore dafa wane ni duñu ay mouton de panurge du ñuy dof yu wën wëndaalu rek topp lu ñëw formidable merci au peuple sénégalais applaudissement vraiment félicitation seen taxawaay rafet na nii la ba ngeen gis leneen rek ngeen bàyyi matt leen ba mu dëgër bu leen bàyyi de bu leen bàyyi de bu leen bàyyi de confiance bi Sonko lañ ko jox ak Diomaye joxuñu ko keneen ndax ñeneen ñi xamuñu leen sax xamuñu leen ci aadama xamuñu leen ci a dañoo xëy gis leen donc du ñu ñëw ñoom yàmbalang bàyyeeku ñoom ñuy def leen neex da am ko déedéet le contrôle n'exclut pas la confiance il faut contrôler l'action du gouvernement voilà donc bu ñu demee ba nga xam ni coow li bëri na le un personnement personne moo nekk nii Ibrahima Diop xam nga daage loolu sax la ci def donc euh, bu ma wooyee euh, on a discuté bu début bi xam nga comme man rek euh, wax naag yar ak teggin nuyu na ma ñu waxtaan yar ak teggin ma ne ko lan nga jublu ci lii donc euh, il m'a fait savoir après que euh, page am jox na ma page am sax nee na bii mooy page am nee na ma wan leen page am boo xam ne deux mille sept cent kii la ci am deux mille sept cent followers nee na moom bii mooy page original am nee ma moolaa bii mooy sama page original bii daf ma def dafa am ñu jël sama page créé ko samay ennemi ma ne ko ñan ñooy sa ennemi waaw waa Pastef la wala waa APR xam nga man na ko dugg sama bureau moom inspecteur ngay jàkkaarloo ma ne ko waa APR ñooy say ennemi wala waa PASTEF mu ne ma non waa APR ñooy ay parce que waa APR moom maire la boo xam ni ci mouvement la demee ba jël mairie ba am na ñu doon xeexal foofu ci mairie ba ñooñu ñoo ko dooy xeex ba léegi ñoo ñoo créé benn foo compte à son ñoom ñoo koy jéem a jaxase ak le peuple sénégalais ñoo koy jéem a jaxase nguur gi. loolu moom moo ko wax ma ne ko d'accord kon yow say ennemi du ñu waa Pastef voilà ma ne ko léegi ba loolu génnee est-ce que yow génn nga pour wax ni wuub wuub aro aro dañ maa sàcc dañ maa piraté wala aro aro wuub wuub am na sàcc yu dem fii nag est-ce que mu ne ma noo ma jotuma def loolu ma ko voilà qui ne dit rien consent buñ la taxé yow di nga di nga di nga daanuwaale parce que man ba ñu jëlee sama page moo la am mërgën di ci def lu leen neex damaa génn yuuxu ko partout ne lii moomu ma ko bindu ma fa xaw ma ko ko créé donc munoon ngaa yow ci sa bopp daw génn wax ni sàcc nañ sama compte def nañ piraté nañ ko wala sama compte lañ jël beneen def ci doublé ko di ci wax du man parce que am nga gémmiñ mun ngaa wax donc foofu dama la euh, dama la euh, euh, daane <laughs> pour l'instant mais nañ continuer léegi bi affaire bi amee mun a ma woy samay ennemis ñoom ñoo may xeex ñoom ñoo def benn compte boo xam xaar ma yónnee la sama compte benn compte bu nuroo comme sama bos sama tour sama sant def ci di ma jéem a yàq donc kon action bi am na ban mooy action bi mooy ki nga xam ni moom moo def lii préparé lii di ko kii kon kii lu mu jógoon mooy yàq lu mu jógte woon mooy yàq ki def affiche bi lu mu jógte woon mooy yàq mais yàqam doxut ku def lii lu mu jógte woon mooy yàq nee na kii moom da ko doon yàqal moom waaye kii bu mu ñëwee fekk na fi ay patron yu am fulla marquage à la couleur mu dellu affaire bi leer ci mooy de deux heures de temps formidable li taxawaayu pastefiens yi moom kenn mënu ko naatable macha allah nii ngeen war a doxalee nii ngeen war a doxalee parce que gars yi boo leen leen seetaanee dañ leen koy def lu leer laa leen wax ñëpp du ñu Sonko te xam naa baax foo ko teg ñëpp du ñu jomaay yor naa fi ay ojo yoo xam ne ministre moo ko fi def ci tabaski bi ay defin bu ñaaw defin bu ñaaw ak ay nit ba jaxase ay nit gis na yónnee nañ ma vidéo bu mu génn wax ni dépensé na temps lépp te pour temps <laughs> dama bàyyi mu sedd noonu lu ma ci mën maa ngi koy def ci suuf ñama xam woo naa leen dem leen gisante ak moom bureau waxtaan li mu def rafetul nangam ak nangam man loolu mooy sama liggéey ci projet bi projet bi mooy bugguma ko ko yàq waaye bu amee ñu nekk ci biir ñu responsabiliser la ñu ñu yàqal yoon la man balaa maa wax dara dama ne dama ne lépp tout ne pas rose bu leen foog ne fu mu nii affaire bi dafa rafet lépp dama am na ñu yàq ci biir te on est conscient am na ñu yàq ci biir am nañ preuve ni am na ñu yàq ci biir mais luñ ci mën mooy balaa ñoo wax dara ñu ngi fexe ci biir nu ñu leen contacter ñu joxe lu ñu kii ba pare ñun tam ñu boole ñi nga xam ni belligérants yi ne leen dem leen ngeen toog ak moom wut leen audience waxtaan leen moom ne leen bu lu ñu defee ci lii bu ñu nangam ak nangam mun naa leen tegal ay audio ngeen gis loo xam ne jot naa cee waxtaan ak ay nit mais tout n'est pas rose tout n'est pas aljana tout n'est pas aljana et le parfait nexist nulle part donc am na ñoo xam dañ leen war a redresser am na ñoo xam dañ leen war a teelaat orienté balaa ñu ñoo yóbbu ci mboy ga donc moom Ibrahima Diop xamal ma ni dañoo piraté compte am wala compte bi euh, dañoo dañoo jël beneen compte bu ñu créer def ci luñ ciy def waxaale na ma nag doléance am nee na ma euh, bi président bi wootee pour set setal moom dafa génn yenn pastefiens yi di ko attaqué nan ko amoo droit génn dangaa bëgg a dangaa bëgg a euh, bokk Pastef wala dangaa bëgg a non set setal bi du set setalu Pastef wax naa ko ko ne ko ah bu dee loolu am na moom ñoo ñooñu xam nga rek il faut les comprendre tamit euh, bëgg bëgg-bëgg bu ñu am la ci ci projet parce que nag il faut ngeen nangu nii da ngeen sonal ñii tey ñii bu ñuy metti il faut ngeen bàyyi la ñuy metti lu da ngeen def 12 ans d' esclavage ngeen leen def 12 ans d' esclavage ay nit ngeen takkal leen ay buumu jaam ay nit ngeen fenal leen dugal leen ci kaso ay seen i frère ngeen rey leen seen i ngeen tëj leen ci kaso yi donc lu ñu dund frustration yooyu noonu il faut ngeen nangul leen ko tamit il faut ngeen nangul leen ko de buñ leen saaga sax nangul leen leen parce que yéene a leen leen psychologiquement yéen leen atteindre dañoo dund ay loo xam ni mu at yéen gis leen nag gis seen butit lañ yemale. il faut ngeen nangu ko yéen a yéen a liggéey loolu yéen a liggéey lu leen gisee ak gis seen butit lañ yemale loolu il faut ngeen nangul leen donc il faut nga nangul nga nangul sénégalais yi nga xam ni euh, dëgg ba ngay génn di set sa dal dañoo métti lu mais loolu warta arrêté action bi nga war a def da ngay xam ni yow guvernement bi moo santaane donc pour le peuple sénégalais génn set setal du set setalu Pastef donc ci la ma yónnee vidéo bii nee na bu muy set setal journée set setal baa ngi nii doon na set setal waa Pastef ñëw attaqué ko. na équipe am set setal mais gaa yi ñu ko doon wax naan yow da ngaa bëgg a transhumer moo tax ngay set setal nangam nangam ne bon moom moom wax métti tam naa ko nag lii du dara <laughs> lii du dara peuple boo xam ne vraiment da ngeen leen di sonnal leen fenal leen tëj leen taqal leen donc buñ leen saagaa sax baal leen leen te xam ne yéen a leen ko yóbbee yéen leen ko yóbbee tamit ku tëj nit ba dofloo ko ku tëj nit ba indil ko ay problème sa waay bu yoneew jaasi jam la ko yow la yaa ko tëj yaa ko traumatisé bëggatul a gis tant que lay gis lu mu jekku mun na la ko def donc il faut ngeen accepté ko yéen a yóbbu ci situation boobu donc boo demee moom nee na set setal bi li mooy set setal bi génn na set setal nee naa ko prochainement asi génnaatal set setal parce bu fekkee le président de la république du Sénégal moo woote set setal c' pour les tous les sénégalais c' pour tous les sénégalais comme sénégalais nga nag nga war a génn set setal donc même bu lay Pastef di wax euh, mais ñun ñii ñi ngi xeex boobu ba léegi ñuy xeex mais am na ay ay soi-disant pastefiens yi ñuy saaga musu musuma def live amul benn énergumène bu génn saaga ma def live te amul benn euh, euh, euh, bousturé bu jóge fële bu ñëw saaga ma est-ce que tax na ma arrêté non parce que sama conviction ak sama ngëm-ngëm waruma mën a tax benn waay bu jóge fële intrus boo xam ne moom fu mu toogee rek di ma saaga donc ngëm gi ma am principe bi ëpp na saaga boobu mënuma ko sax gis wala day tuuti ci man donc boo boo boo bu dee état moo la tax a jóg réew moo la tax a jóg patriotisme moo la tax a amul lu la war lu war a mun a ñëw sa kanam ba yàqal la donc ci la xamal ni dafa war a continuer ci li mu nekkoon bu président bi wootee liggéey bu demee liggéey tamit mu respecté liggéey bi du ne damay liggéey damay saboté parce que man waa APR laa te Pastef ñoo fi toog déedéet na liggéey en tant que fonctionnaire na def wareefam loolu wax naa ko ko defal sa wareef même ci liggéey bi defal sa wareef bul ne man kii laa wala nangam les obédiences politiques la c'est dehors boo ñëwee en tant que fonctionnaire sa jàng fa kii defal daaj bi nag affaire politique la Daesh secretaire général yooyu nga gis yooyu ay c'est des politique la ñoom ñëpp ay fonctionnaire lañ Sonko nekk na fonctionnaire quinze ans musul doon Daesh musul doon secrétaire général musul doon lu tax parce que politiqueul bokkul ci parti pouvoir bi Diomaye nekk na 15 ans ou 17 ans impôt domaine musul doon Daesh musul doon secrétaire général et cetera et cetera donc c'est des fonctions politiques nit ki koo woolu nga fay teg doo fa teg sa noonu. c'est normal donc daas googu yooyu bi ngeen daanoo la daas bi di dem parce que bokkul ci seen ci seen liggéey c'est de fonctions vraiment yoo xam ne dañ dañ la koy yokkal mais c'est politique mais tu es fonctionnaire simple ba nga daanoo la daas ba daanoo dañ koy rocci jox ko keneen PCA loolu yëpp ay daas PCA secrétaire yooyu ay c'est politique Sénégal dañ ko dañ ko def politique voilà donc euh, moom loolu la expliqué moo nekk nii onaa a discuté moo nekk nii on a discuté donc moom nee na mi ngi jéggalu euh, le peuple sénégalais comme quoi que dañ ko dañoo jël comme genre comptam créé ci di di yàq donc mi ngi tuub di jéggalu ci li am nee na mi ngi jéggalu la peuple sénégalais ci li xew nee na jël nañ ko dindi nañ daaj ba dindi nañ lépp fonctionnaire simple la te nee na accepté na ko te nee na nangu na ko il a joué il perdu ba mu faree ci ñële ñële perdre nañ donc il a perdu donc moom xam na ne accepté na qu'il a perdu c'est fini donc on avance dara ñor fi bañ koy màcc donc côté boobu jeex naa moom nee na euh, compte bi dafa am beneen compte bu ñu créé ay noonam lañ de ne noonam yi mooy ñu ko doon xëccook moom ci euh, mairie ba ñooñu ñoo créé compte bi pour jëm ko yàq voilà léegi mu ngi tuub di jégalu ci coow loolu waaye daal man moom maa ngi ci profité gën a sant waa patriote yi <laughs> maa leen di gën a sant tey laa gën a gëm ni ñi ma àndal ay jàmbaar lañ tey tey tey laa gën a am confiance ci patriote yi parce que taxawaay bi ñuy taxaw ci li fi xew chaque jour bu amee manipulation nu ñuy taxawee dama je suis content je suis fier de ba mu fi amee ci ci ci ci ci euh, l'affaire kii la commencé ci affaire waa ji woykat bi Wally Seck dañoo taxaw offisqué wu taxaw taxawaay bu dëgër këcc ñu pareete ñu jóge ci bu Wally Seck bi ñëw ci bu ñaaxarañ bi ñu taxawaat rayante bu mu dëgër këcc mu saf ñu wan leen lu leer ñu continuer bii tamit dañuy taxawaat offisqué wu xeex xare ba ñu wan leen lu leer ñu demaat formidable bu leen ko bàyyi de bu leen ko bàyyi ni ngeen taxawee noonu la nit dangay am fulla fulla jaa da xaar baa mañam jeexal ko boo leen ñàqee fayda gaa def leen ko ni ngeen ko taxawee noonu la ku leen ko rokkos ngeen doppos ko ci ba mu saf sàpp génne macc sa baaraam taxawaat taxaw leen fu ngeen taxawee noonu la bu leen ci kenn génne de billaahi boo leen yambaree laa la wax gaa yi def leen ko tëgg leen wëndeel taxaw leen ni ngeen taxawee noonu la vous êtes des sentinelles et vous jouez pleinement votre rôle de sentinelle du projet euh, des sentinelles de la démocratie fu ngeen ko jëlee yàgg na metti na fu ngeen ko yóbbu tamit du caaxaan deret ngeen tayle ñaq ngeen tayle bakkan ngeen tayle pour yegg si fii donc bu leen nalaw bu leen musa nalaw ne dormez pas sous vos lauriers lank leen ba tëdd ci suuf bu leen ko kenn defloo bu leen doon tamit ay ay euh, euh, lu Serigne Touba doon wax ñaar yi nee na bul nangu ne mbaam waaye bul bañ na xaj wax jooju nag Sëriñ Tuubaa da ko waxoon te dafa am solo bul nangu ne mbaam waaye bul bañ na naxaj nañ taxaw ci digg sentinelle rek dégg ngeen sama gaay bul nangu ne mbaam mbaam dañ koy sëf dóor ndulli lépp lay nangu bëgg tut ba muy bëgg a dee bul nangu ne mbaam Sëriñ Tuubaa ko waaye bul bañ naxaj xaj lu yëngu mu wax go donc da nekk ci digg bi macha allah taxawaay bi ngeen am am na solo su nekk ni lii bu jeexee da ngeen yéen ngi nekkaat ci leneen bu amaatee leneen rek ngeen taxawaat donc noonu la mun doo nekk di lamante wu saa su ne gisuñu ko ci yéen nekku leen di frustré saa su ne demoo yéen a ngi si seen liggéey yéen a ngi ci seen waar yéen ngi ku nekk yaa ngi ci lu nga mais bu dara amee da ngeen di taxaw lijjanti ko ba mu leer ngeen avancé donc bu leen nangu ne mbaam waaye bu leen mer ne xaj am na solo taxawaay bi kontaan naa ci yéen nii voilà na comme nu ma leen ko waxee rek saa yu ma amee nag ay information dinaa ñëw wax leen incha allah comme nuñ koy defee rek ni ba tey jii boo leen waxuloon du ma am information bi de <laughs> boo leen waxuloon coow loolu mënoon na fee yàgg dangeen a wax ma jël wax ja publier ci laa jot autorité bu ma leeralal bo bu bu loolu amuloon nii lañ doon toogee seen bureau yi ah ku ne di lijjanti foog non non fii loo fi am am na ku la ko rawee. bu dee benn diplôme nga am moo la def ministre am na ko yor fukki diplôme yi te newul ministre kon war ngaa sant saa su ne ministre bi nga doon ne dàqoo jàng Sénégal ëppoo fi diplôme foo yëngu am na ku la ca mën xam-xam boo am.